Tay dañuy euh, à la brigade régionale d'hygiène de Kaolack pour donner euh, un produit désinfectant au capitaine Ndiaye qui est le chef de la euh, brigade régionale dans le cadre de la lutte les populations les autorités municipales de Kaolack mènent dans la riposte contre le Covid-19 Sénégal mais autorité municipale Kaolack di combattre ba tax tey ñu dajalé ay moyens ñu am bari jox ko service d'hygiène pour jappalé len ci action de prophylaxie ñi ñuy mëne quoi euh, jox nañ len ay produits ci lu toll ci valeur 3 millions quoi pour jappalé len dans un premier temps pour ñu désinfecter les lieux publics les marchés mais il y a un ensemble de services euh, le capitaine dina ci ñew tout à l'heure et également il est

Euh, lu ñu tuddee compétence décentralisée éducation bokk ci culture bokk ci jeunesse sport bokk ci santé hygiène action sociale bokk ci donc ci cadre santé hygiène action sociale boobu moom lañ ñëw jàppale service d'hygiène en plus de li ko état di defal pour ñun ñëpp ñu àndandoo euh, daan coronavirus quoi. Euh, xanaa rafetlu rek teewaay bi nga xam ni mairie teew na ko ci suñu ci suñu wet ci xeex bi ndax nee nañ lu kenn man ñaara ko ko dàq waaw won nañ ñu ko

yi ñu ciblé aussi structure sanitaire région médicale district sanitaire ak poste de santé yi ak marché yi ak jumaa yi tey ji dem ci ngoon ci dimanche bi lañ defe woon jumaa Medina Baye donc béréb yooyu nga xam ne nii am na ñoo xam ne ñu ngi continuer di ko fréquenter yëpp dinañ fa def def li nga xam ne opération bi lii daal moo sabab li nga xam ne mooy suñ taxawaay